li sadinatan bi màggal Touba gi ñu ngi koy waajal bu baax a baax ci bërëb bu sell bi di Touba délégation yi wéy di ñëw ci bërëb bu sell bi fii ci Daarul Minan ci kër Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir ki nga xam ne moo di directeur NMA di Ahmed Amar ñëw na fi moom it doon ziyaara sëriñ bi indaale fi addiye ju takku bokk na ci addiye jooju camion yi ngeen jàkkaar lool nga xam ne benn camion bi dafa fees dell ak ay pastami yoo xam ne da ko indil sëriñ bi waaye bokk na ci ripaas goo xam ne tamit indil nañ ko sëriñ bi mu jëm ci jur gi loolee lépp mu boole ci ambulance bii nga xam ne ambulance médicalisée la mu jox ko addiye Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké te it amaat yéene beneen ambulance boo xam ne dana ko indi nee na da koy jébbal ñi nga xam ne ñoo di maam jaare yi nekkee ci poroxaan loolee lépp di jëf taalibe boo xam ne dafa ñëw ziare si sëriñam ci di waajal bés bu màgg bi nga xam ne moo di fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bés bi nga xam ne ci la fi sëriñ Touba génne woon dem liggéeyal ji boroomam ñu ko ci santale yàlla saa yu dul seetee ci àddina moom Ahmed Amar mi nga xam ne moo indi àddiya ji gisante nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ziare ko ànd ak ak njabootam ànd ak ñenn ci ay xaritam ba ci ñi nga xamante ni dafa bokk ñoom liggéey mu nekk ziar boo xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha rafetlu na ko lool waxtaan ak moom waxtaan woo xamante ni am na solo lool moom mi nga xamante ni nag moom moo indi adde ji di Ahmed Amar ginnaaw bu mu gisante ak sëriñ bi ci image yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool bi génnee ci ziar bi am na ay kàddu yoo xam ne jot nañ koo taataan ci ñoom. xam nga sëñ bi def ne moom euh, lu muy def rek liggéeyal sëñ Touba donc lu ko ko nit jox aussi da ngay dëggal liggéey boobu donc lañ koy def dañ koy dimbali ci liggéey bi nga xam ne que moom la sas. li nga xam ne mooy NMA nag NMA mooy euh, societé boo xam ne une société sénégalaise boo xam ne que li muy def aussi askan yi dañ cee war a gis seen bopp. kon comme màggal gaa ngi ñëw ñu andi woon euh, aliment surtout indi aussi ay pâtes. ambulance bi c'est une mais boole ko ak enveloppe sëñ bi dañ koy dañ ko war a dimbali ci université bi muy tabax bi mu commencé dimbali ko ci màggat bi ambulance nag boo koy joxee da nga koy joxe parce que xamoo ko muy transporté bu fekkee ne ku feebar bu nekk daf koy transporté jàmm yàlla ci loolu la commencé. loolu moo tax ngeen def don bi tey. waaw loo tax ñu def don bi dañu joxe woon euh, Mbàkke lañ jëge joxe joxe Kébémer joxe euh, tout de euh, ça fait un joxe woon Tivaouane joxe kii li ñu bëgg te mooy euh, année bu ne ñu jënd ñaari ambulance joxe ko parce que ambulance ka mi transporté doo ko xam te ñi muy transporté am soxla nañ ambulance beneen ambulance bi nag moo beneen am na boo xam ne aussi ñu ngi koy préparé boo xam ne moom directement Porokhane lay jëm jox nañ wax nañ ko sëñ bi ba jox nañ ci ndogal loolu moom sama doom bi tudd maam jaaram moo koy jox turandoom ak daaran turandoom euh, maam jaara a Porokhane noonu noonu xam nga jàppale sañ bi moom jàppale sa bopp la parce que ku liggéeyal sëñ Touba jàppale sëñ bi mooy jàppale Touba jàppale taalibe bi ci murit parce que élément fu mu toll aussi sëñ ñaanu ñaanu sëñ Saliou daf ci bokk sëñ Saliou moo ne woon lu ngeen ci yaakaar da ngeen ko ci am ba am ci lu ngeen yaakaaru loon kon loolu xañ na mooy résultat bi ñuy gis tey kon luñ ci def ci yoonu murit day loo xam ne dañ ko war a def waaw du <clears throat> xamoo xaalis dafa xaw a kii am na daal enveloppe boo xam ne joxe nañ ko joxe nañ ci aussi <clears throat> quinze tonnes joxe nañ aussi treize tonnes de pâtes leen mal di liggéey lépp daal joxe nañ ko jàppale ko sëñ bi ci màggal gi jàppale ko ci yoon bi boole ko benn enveloppe boo xam ne nag waaw ci université bi la jëm enveloppe boobu moom sëñ bi moo koy moo xam nu mu toll ak man ak ñun ñu ko ko jox waaw barke démb xam nga yaa ngi ma doon fàttaliku école de bi ñu doon bon benn classe bañ yaakaar ne que lii mooy euh, mooy euh, man sax bi ma fa demee ba dama yaakaaroon théâtre moo fa am wala kermesse parce que xaw ma woon ne loolu mooy am mooy classe bi ma nee directeur bi kan moo fi nekk ñu ne ma directrice ma ne ko dama téléphoné dinañ may classe bi ñu téléphoné ñu may ko classe donc euh, dimbali xar yi dimbali njàngale mi dimbali murit yi kooku duñ ci tàyyi te dañuy continuer jërëjëf jëf li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna